halo prestasi dari pengguna prestasi kerobak kerobak Alexander Krista sore di versi kecuali kori prestasi dari apa dari prestasi prestasi dari pengguna muda merusir sura kaca dekat pada kapal saya aku sudah menulis saat itu semula pada nayak lalala meneklarasi satu official di gubernur senala prestasi live lepor serah sore jam enam saya sangat dekat baju karbon orang dum dum semak saat dum dum semuanya penyemat nukan bahkan kiwar bekerja prestasi kok kalau orang lakai salus salus yaayi papa lu ah jël na ma. yow xoolal ma kifin gi ndax jël na ma ndeet Sall. jël naa de mani yi ndax jël na ma Sall. mani. Sall. mani soxna si président. mani man du président maay wax ak yow. président maa da dul dégg di. président mani du président de. ah. mani du président. ah président laay waxal. déedéet président dafa jàpp. nga ni président dafa. ดาฟยับดาฟยับมันมาฮักยับว้าวว้าวว้าวใครว้าวว้าวยายฟักฟดูมเลยว้าวว้าวคำนาเขาใครลวรลวเทบียายฟักฟดูมมันนี่ลันโมวรลวเทบีว้าวลลาลียายฟักฟดูมเลยเอว้ามันนี่ยายมะมันนี่อ๋อลันโมวรลวเทบีลูลูวรลวเทบีคาลิสบีอ๋อวัวเทบีวัวเทบีว้าวว้าวว้าวเทบีว้าวใครลูกาววรล xa euh, kii euh, papa papa du. waaw. xaalis xaalis bu ma ko joxoon ngir ma jot ca jotuma ca de. loolu yàgg na di. ah. ma loolu yàgg na président fàtte na ko sax. nga ni jox na ma ko. dama ni loolu yàgg na président fàtte na ko. président. fàtte na ko loolu yàgg na. fàttali na ko ko. fàttali na ko ko. waa na ko ko fàttali ni ko sa jox ko xaalis bi xaalis bi moom taxu koo jox. waaye ya bu ngeen toogee ni cell ni nga kan ni cell président ni cell premier dame ni cell du eh, eh, ma ca jot mani te daa caa war a jot mani fi mu ne danoo nekk ci yeneen yu ñuy lijjanti yu dul ay lijjanti affaire xaalis ah président dafa ne ci yeneen lu dul lijjanti affaire xaalis nga ne président dafa nekk ci leneen lu dul lijjanti affaire xaalis dafa nekk ci leneen lu dul lijjanti affaire xaalis président kañ la tàmbali loolu ah. caa yàlla. ah déet loolu man te nekk kat nee ko nanu na nanu kii kat nee ko na na taxaw ci sama koppar yi kat ah. ba baax na dina ko dégg. dama koo soxla waay. baax na dina ko dégg. dina ko. ma baax na dina ko dégg. nga ni dina ko. dina ko dégg dina ko ah, dégg dina waaw waaye nee ko mu gaaw ci waay ah bu soobee yàlla dina ko dégg damaa soxla xaalis bi wax ko ko te bu ma boole te kenn ma di ko jox direct waaw kay baax na ah. jërëjëf jërëjëf ana Marème Faye waaw jërëjëf nekku fi nee ko enveloppe bam naa moom it soxla naa ko ma ni si ah ma ni jërëjëf dégg na li nga wax lépp jërëjëf nga ni Marème a ngi to jox ma ko ma ni de votre correspondant peut-être pour le moment dama laa coupé FM, oh, oh, oh, La radio de mes pensées, RFM. La radio que j'aime tant, RFM. La radio de mes pensées, RFM radio que j'aime tant, père Merci d'être avec nous sur Radio Future Média. Il est 10h, le point sur l'actualité. Bonjour à tous. Et d'abord le décès de maître Ousmane Sey, avocat, euh, leader du parti Front Républicain, euh, membre de la coalition euh, présidentielle, décès survenu ce matin des suites d'un malaise la convocation d'Agibou Soumaré ce matin à la sûreté urbaine. Khalifa Ababakar Sal dénonce et parle d'une tentative de musellement de l'ancien Premier ministre. Le président de Démocratie et République avait adressé une lettre ouverte au président de la République sur un supposé don de plus de 7 milliards de francs CFA à Marine Le Pen, un parti